ziar senegal ziar Afrique ziar monde entier bok Samagal TV bok internautes yi seen bokk si sa jëm mi ngi fii ci bergerie Arc-en-Ciel leen nuyu nag di leen wax ni tey ñu ngi am waxtaan ak euh, waa Bachir arc ki ñu jàkkaarloo nag mooy gérant bi kilifa gi tur bi la. Doudou Diop. Doudou Diop. Mm-hmm. Doudou bergerie Arc-en-Ciel mooy ban bergerie. waaw bergerie arc nag benn bergerie la bu nekk Thiès. Mm-hmm. boo xam ne ñu ngi ko créé dans les années 90. vingt dix. Mm-hmm. donc euh, am na presque. 30 ans. d' existence je peux dire ou environ. ok waaw trente ans d' existence. Euh, année 90 lan moo kan moo ko kan moo ko soxal euh, bergerie bi. waaw bergerie bi nag sama pap moko ko moom moo ok waaw créé nak commencé ci ak ay produits doomu Tyson direct. Mhm. ay doomu Badling Badling direct. Mhm. je pense que ño ño ñoy premier produit yi nga xamné ne jaar nañ ci ci bergerie bi. Mhm. juste rek da lay ni que tamit ay produits qualité rek la bergerie bi ci lay dox. Mhm. parce que buñ né la Tyson ak Badling ñu né la xar bo tay mu daw laq fofu mhm. bi bergerie bi si ñooñu la dem tibb. xam nga ay ay mal yo xamné ay référence woon. Mhm. ñoo fi ñoo fi produire li taxoon ñuy wax élevage cham jamono direct le bergerie bi commencé woon. mu lay rek qualité ci bi la mais Chérif jamono boobu mu juddu fii la nekkoon. wala na euh, ban ban la amoon. wala arc-en-ciel bi fa judduwaale ak moom naka la demee. waaw Bër Chérif musul changé. fii la nekkoon. Mhm. boo xoolee. dama euh, dama juddu fekk fi bergerie bi. ok waaw te man ci xar yi presque laa doon fooyee. ba man ni ma tool nii lépp ci biir kër la mos a ci suuf la woon. ba léegi gis nga ñu dem ñëw jël deuxième bi aménagé ko ba xar yi dem ba jël fi place bu rëy a rëy. ba bergerie bi gën a màgg tur nag bergerie arc comme j'ai l'habitude de le dire dafa mook bergerie bi ñoo ànd. ok fi mu nak euh pa bi mom Nelson Mandela moy son référence. Mhm. bo xolé Afrique du Sud après apartheid bi Nelson Mandela bi mu ñëwé dafa né différence de couleur wala différence de race wala différence d'ethnie warul tax dëkk bi xajalo xaajaloo. Mhm. bari nañ nduroowuñu waaye mën war nañ war nañ mën a doon benn. Mhm. té doon benn boobu moy tax Afrique du Sud ma màgg. ñu tuddé ko la nation arc-en-ciel ndax. Euh, multiethnicisme bi fa daje. léegi nag ci loolu la inspiré wu jël bergerie bi tuddee ko mhm. bergerie arc muy ciel muy bu nga xam ne xamul nit xar la xam. ok waaw xamul tamit maal bii maal bee lépp lu mu gis muy njëriñam ak fu mu munti nekk kër gu mu munti ak kër gu mu munti ak ku ko munti yor dañ koy dem jëli. ok macha allah. boobaak léegi yow mm-hmm. yaa tey yaa toog ñu xaar na ñun mm-hmm. ban ban ban ban fàttaliku nga am ci xar yi nga xam ni à part ñoom Tyson mm-hmm. ban fi jaar ñu xam ne nga limal ma fi quelque waaw xar yi fi jaar bëri na parce que xel comme bii may wax mooy vingt cinquième mâle bu ñu acquérir ñu jënd waxuma yu fi juddoo ñu produire ci de yi nga xam ne dem nañ jëndi ko ok xel comme bi mooy vingt cinquième mâle bi pour da wax rek ñun élevage lañ jëm lañ gëm est lii jëm ci kaw à chaque lu ñu am rek dañuy jéem a xool lu ñu def ba teg ci dem ci leneen ci biir loolu nag xar yu ma marqué damay jël rek décennie bu mujj bi 2010 ba léegi déjà en 2010 amna mal maa nekkoon tourne Obama déjà nekkoon euh, rakk ci Bosco. Mhm. nekk jël jëloon fi aussi émission xar bi. Mhm. Euh, niveau Thiès. Mhm. nekkoon aussi maal bu extraordinaire hein. aussi en terme de production aussi. mu nekkoon mal bu mun production. boo après kok aussi euh, je peux dire Doudou. Duudu nek doomu Dieyna mhm. Dieyna kenn dootu ko présenter ci élevage bi nek mhm. doomu Dieyna Hamza nek Rakou Bachir mhm. jar fi aussi def fi ay produits exceptionnels après mom domam aussi Aspic je pense que buñuy wax tay amna un mois donné booy wax élevage ben période période 2014 2015 pour xar nga gis xar bu jigen moom un mètre bëriwul won c'était rare te bokku na ci Malikou ko doon njëkk mu nekkoon lu nga xam aussi c'était c'était quelque chose de vraiment exceptionnel après kooku. Mhm. Euh, bon ay maal jaar nañ fi ku mel ne Soleil. Mhm. marqué temps am aussi parce que Soleil moom bi mu fi bi muy dund doo dégg beneen maal bu Soleil magistrat. Mhm. ñoom ñaar rek nga doon dégg Soleil bi mu fi jaaree ba pare nag. ñu pare ci loolu dem jëli ci doomu magistrat parce que boo xoolee soleil magistrat ñoo fi nekkoon imposé seen bopp ñoom ñaan ñëpp nag ñu jugee ci Aïcha pour wax aussi que Aïcha nu mu nekkoon une femelle mythique ba ñaari xar yi fiy coow kenn ki doon doomam kenn ki doon sëtam mhm. on s'est dit kon travail de base de femelle mënoo koo def di tëb ay char comme que dugal nañ soleil mu nekk sët magistrat moo fi nekk ñu koy tëkkaleeg soleil il faut que magistrat dugg fi wala maire doomu magistrat dugg fi mhm. ci perspective yooyu lañ dem jëlee raan te aussi bu ñu nee c'est le meilleur fils de magistrat kenn du ko bañ mhm. mu jaar fi aussi def liggéey bu extraordinaire liggéey ak soleil moo tax bi ñu bi ñu liggéey ba pare base de bi fi génn nit ñi dañ la wax naan nit ñi lii nan lañ ko mën a créer mhm. te du dara lu dul fixation bi ñu amoon ci Aïcha moo tax résultat boobu ñu mujj ko ci am loolu boo xoolee tëng yi nga xam ne ci jur na xel ko jur na ko rek mhm. day wane li nga wax quoi mhm. mais ñu def tuuti récap man na ma ñëw gis fi ay maal benn maal suuf ñu ne ma am na presque six ans ëpp na ko ëpp na ko kookal la kooku Candé la nekk aussi donc Aïcha ok ak Albouri ñaari champion du Sénégal jur ko Aïcha est champion du Sénégal. Mhm. Albouri aussi champion du Sénégal 2014. Il a jur muy magistrat. Il mhm. est aussi maam boo xam ne def na Il mhm. a produits ci ay yu euh, passion non passion parce que encore une fois rek Aïcha encore pour la Aïcha. ok wax la aussi est que femelle tey fi boo fi tay, mu Aïcha

ñom ñaar ñu nekk ñaari Mali yu xam ne ñoo doon def buzz au Sénégal. Mhm. on s'est dit ñaari Mali yu bo len bolé ñu nekk ben lan lañu wara war def ci biir lool après foire bi lañ dem jëliko mu ñëw fi nak fekk fi ay doomu soleil yu jigéen. Mhm. déjà soleil def fi base de femelle bu extraordinaire. Mhm. mo mu ñëw jaar si. bi mu jaaree ci lool aussi ay tak tak genn ku melni espoir du Sénégal dafa ñëw foire gagné ci croisement bobu la genn ku melni ne Linguère. nekk rak espoir du Sénégal dem Saladam Classe troisième comme les Baraka nous fi foire catégorie espoir classé troisième yu ay aussi catégorie agnelle classé troisième nous mhm. ñep ñu ci même type de croisement ok kon nga xamné ne du parce que buñ ci kër gi lañ doon ay rek ñu wax mais dañu dem fekk que mal Mal dajé moy fi ma rek foire bi passé six doomu ran yek podium. ok ñu nous aussi classé ci fois ok xam nga loolu kenn mus koo gis. Uh-huh. mais raan la ak raan ak li ko li nekk ci ginnaawam. moo uh-huh. tax travail arc en à chaque fois escalier la. ok soleil ñëw na fi def fi base de forme extraordinaire. Uh-huh. moom mu ñëw jaar ci defaat base de forme extraordinaire yaa ngi gis maa ngi lay génne léegi ay tëng. ku ñëw daan doomu raane mën ngeen leen a maye. ndax gis nga li ñu jur. ok aussi berger bi aussi day dox ci sélection parce que tamit euh, liggéeyu xar dafa metti moo tax à chaque fois li nga am rek pour nga ut loo ci teg. dafay dafay sélection bu métti la surtout nag nga war a génn war a seeti feneen war a uti war a ñëw dolli c'est un travail très très difficile. benn question bu ma xaw a jaaxalaal voilà yéen ni ngeen bëggee xar ak bergerie fu mu toll raan hmm. fu mu tolloon ci élevage. Hmm. lan moo tax ngeen bàyyi ko mu def lan ngeen génn ko. waaw ñun suñu bëgg-bëgg ci élevage. Hmm. moo ëpp doole suñu bëgg-bëgg si raan. te élevage dañ lay wax euh, nit dina faa xar ñun élevage lañ gën bëgg ka xar. ka xar cest am nañ benn idée xar.

jàllal nga dem uti leneen. parce que loolu nga ci am bu fekkee ne que gëm nga ne yaa ko liggéey war ngaa mën a liggéey lu raw loolu. Mhm. moo tax maal bu fi mun ti dugg soo liggéeyee ba pare bañ téye sa ay doom nit ñi dinañ wax nag. gaañu ngeen bañ jaay soleil dañoo ne woon xaru mel na dootu leen ko mos a amati ran ñëw ñu fàtte loolu ran produire ñu ne li ran di produire xar du ko produire ba ñu ko jaayee perte gis nga doomu raan yi jur nañ ñu ngi naan doomu ne mën ngeen leen a maye te jàpp nañ ne tamit yii fi juddu nii ba ñuy wax ne que mën ngeen maye seen yaay bu ñu defee deux ans tamit ku fi ñëwaat ne maye leen leen ci perspective boobu ci la bergerie bi di dox macha allah loolu loolu léegi xam lu ma bëgg a xam Doudou mhm. comme yéen parfois da ngeen dem xool xar mu neex leen ngeen indi ko seen biir yéen critère ngeen ni basé wu ba gis xar mu mu jaral waaw paa bi nag du ma wax man mais moom mhm. def na ko defat ko defat mm. ko dem fekk ay moto yu doog a juddu. waaw mu jël leen après ñu mujjee exposé. loolu moom am na ci doomu boppam. man xaw man nag mel. don la quoi noonu <laughs> moom mel noonu. waaw bi mu jëlee soleil aussi bi mu koy jënd bu euh, amee mu amagul weer. waaw ci la ko jënd mu màgg def buum raat bi mu koy jënd amul semaine. quatre jours la am je pense xaw ma trois jours mu jënd ko. Uh-huh. waaw bi bi bi biñ koy jëli sax dafa yaay ji amul soxla deux mois la am ferul ñu dem récupérer ko noonu indi ko uh-huh. waaw. mu ñëw cuxur ñaaw mais tamit ñu teg ko loxo rek. pare moom mu amoon ci yaakaar te yaakaaram mu ngi sotti moom daal am na flair ci mbote. xel kom tam da muy ñëw. xel kom moom bu muy ñëw mi ngi am ay dix mois. ok dix mois et demi onze mois. Mhm. période boobu lañ ko jël. mais bi ñu koy jël aussi yaakaar bi la ci amoon. ok tey boo xoolee mi ngi doog am deux ans te bi ren di daanu ren dem na ba am quatre ans toll nii si njoolaay. dëgg la waaw. ça veut dire que loolu tamit barke ci quoi parce que bu dee euh, mag moom doo am na loo mën bu ko xolé rek amna lu muy gis lénen quoi parce que bo boo moo nee ñett xar yoy yëpp ba fiy ñëw ay mbasa lañ mm-hmm. ba paré après ñu tollu fu tollu comme amna lo xamné lénen la quoi mm-hmm. mais fan la arc-en-ciel toll ci ci ci biir ci ci euh, élevage waaw xam élevage mom surtout laadu bi dañ na liggéey bu dul jeex la mm-hmm. kon amul fin kon course la boo xam ne euh, course de de de fond la quoi du du bët bët bët. Mhm. di nga gis tey élevage ku jël cent millions. Mhm. këpp ko ci léegi ñu dégg ko léegi déwén dootoo ko dégg. ok moo tax tey affaire boo ko tegee ci xel rek xam ne que c'est c'est un travail sans kon da xam ne loolu liggéey doyul. ok boo ci liggéey bañ ne la yaa fi rawit boo nelawee tuuti nit ñi bàyyi la fi kon à chaque fois liggéey la ba raw waaye raw fexe ba téye sa bopp ci kaw. Mhm. loolu moo ci am solo tey ci loolu la bergerie bi nekk. à chaque fois que nous devons nous parce que a ko nous nous nous nous croiser ba am ay produits bañ la femelle de mm-hmm. on pousse encore la barre plus haut c'est élevage dal ngén wara jëm ci foire mm-hmm. am fa ñaata box deux box comme comme d'habitude. Mm-hmm. parce que comme on dit mom, la. mom d'abord. dafa am benn waay bu créé woon benn slogan euh, Pape Demba da koy nuyu <laughs> waaw euh, tuddee woon ko slogan bi Thiès d'abord uh-huh. mu nekk slogan bu bu am njëriñ uh-huh. suñ ko exploité uh-huh. nekk slogan bu am njëriñ te ci biir Thiès d'abord bi da nga ci war a gis ni que li ma ci jàngee man tey riit bu exposé dafee foire tey ñëpp ñëw Thiès dañoo war a wane seen bopp waaw ba ku dellu xam ne Thiès am na lu fa ne ba tey ñun bu ñu bu keneen di tëgg sax Le regroupement des éleveurs intensifs de Thiès Reid vous convie à la foire régionale de l'élevage de l'année 2021. Ça sera du 17 au 24 mai à la promenade des Thiessois. Ce grand événement est parrainé par le docteur Monsieur Pap Ali Diallo, membre fondateur du regroupement Reid. La cérémonie officielle sera tenue le 22 mai à partir de 10 h mbokki Sénégal rawatina waa Thiès foire régionale bi ñeel di am ci promenade des Thiessois fukki fan ak juróom-ñaar jàpp ñaar fukki atum 2021 foire de l'élevage bi dina dajale éleveur yi gën a mag ci réew mi yépp te di fi ay laadum yu gis excellent foire régionale bi jële fi xam-xam ay conseil expérience bu leen di jariñ abadan ci jur gi waaye jënd pur sang notez bien rendez-vous c'est du 17 au 24 mai 2021 ànd ci ak REIT le regroupement des éleveurs intensifs de Thiès. mu nekk slogan aussi bu ma bu ma marqué bu Papis Demba boobu. ma gis nag préparation bu am solo bu am doole bu bu réeg commencé fii ci promenade de Thiès waa euh, lan moo engouement boobu lan moo ko waral. waaw boo xoolee moom lu tax lu tax euh, Thiès yëngu. Uh-huh. je dirais foire mosut a ok préparation adam Sakh, je pense. waaw waaw non bi, man dama yëm. mosul mel c'est-à-dire que Thiès mooy berceau laadum. waaw Thiès bu ñuy wax laadum dëgg dëgg dëgg Thiès moo tax. demoon na ba un mois donné ñu gis yeneen association yëpp ay jeunes yor ko mais Thiès euh, di remercier aussi euh, papa docteur Papa Ali Diallo. mu mm-hmm. xam ne liggéey na lu ne élevage. Mm-hmm. nekkoon président. Mm-hmm. rey téye ko. mais ñu dem ba un mois donné aussi mu ne day bayu place bi ak jeunes yi. ok parce que fepp fo dem ay jeunes ño fa né mu ne nag yéen jeunesse Thiès bi kay leen woné sen bopp par rapport yeneen forme de jeunesse OK ñu ñëw nak jeunesse bi téé ko. Mhm. di di di di di ci profito di remercier aussi le président Khadim Fall. Mhm. ak son vice président Pape Dieye nek ay jeunes yu engagé. Mhm. ndax li ñu sumu ni jeunes yu Thiès and ci ak ñom ñu song ko té yaakaar naa ne dinañ ci am ndam. du lu ndaw. té aussi il faut que Thiès wane boppam. Il dafa a di nelaw dafa mm-hmm. te je pense que produit yang fi. Mm-hmm. xam-xam fi. Mm-hmm. engouement fi. foire bi dina surprise. Euh, kon euh, instant bi euh, lan lan question relation Galoya. bon la di ah, mais <laughs> relation xam ñu ay mbokk lañ. ok parce que lu muy commencé visite visite lay commencé. Ah. dem ba soo xewlee kii ñëw ba affaire bi day romb xar. ok te je dis collaboration ñaari nit bu demee ba romb 20 ans. Mhm. nekkatul xar kese. d'accord ndax bu fekkee ne soo soo feebaree sa morom euh, yëg ko soo amee naqar sa morom am naqar. Mhm. soo amee dëj sa morom mettitlu ko romb na léegi cadre xar. Mhm. te mais euh, collaboration la rek bu bu boo xam ne mën na nek tamit diggante bergerie yëpp. Hmm. bergerie arc en ciel nu mu nekkee ni en hmm. collaboration saine avec hmm. la bergerie Galliard Mbao di remercier euh, di di ci nuyu aussi le président Abou Kane mu liggéey liggéey bu am solo ci élevage Sénégal. je pense que c'est une légende. c'est une légende si si élevage la bi parce qu'en termes de liggéey liggéey na ci lu nga xamné ne. nit liggéeyagu ko. ba paré waxuma la mais effort bi mu fournir pour jël masse bi jël élevage jël mouton laadum rek yëkëti image bi ba ñu respecté respecté ko à travers le monde ba boo demee tey salon de l'agriculture bu Paris. Mhm. doo fa fekk xaru Mauritanie doo fa fekk xaru Mali mais da ngay fekk photo xaru laadum ñu exposé ko foofu salon de l'agriculture bu Paris nga xam ne kon dafa na ci liggéey bu am solo. jara njukkal la ok. Mhm. balaa ñuy dem nag damay tëj xam na dañuy xam na dañuy war dugg nga ma a ma quelques sujets parce que mhm. tey waxtaan bi dama bëggoon ñu wax euh, fixé euh, wu ci bergerie bi mais mhm. dañ jëm ci lu am solo muy foire yi dafa ñu def ko ñaari partie mhm. mais yow euh, Doudou sa nekk koo xam ne am xam mu liggéey ci xaar nga ñëw war a jël relève lan lan nga ci wax bëgg a yokk non déjà damay wax ni que ñëwuma pour jër relève <laughs> ah non da ngay jël relève bi non parce que gis nga passion moom uh-huh. bu xasee ba nekk ci yow uh-huh. da kay koy deewaalee rek ok waaw moom seen un passionné je pense que passion bi parce que nit la man sama premier salaire xar la ko fi commencé une kon passion am na fo xamné lu rëy la si mom mhm. kon lu ci am tamit. Mhm. dañ koy une xamné rek mérito la. Mhm. te tamit sacrifice yu mu def ci élevage dafa bëri. ok ci aussi ba euh, na sax euh, benn fiche bu mettre en place. Mhm. mais profiter aussi de ko waxaat yi aspect scientifique bi il faut ñu nous ko si. maintenant en place benn benn benn benn fiche bu defar ay courbe de croissance. boo xam depuis 2014 mu ngi si. Mhm. ba léegi da ngay ñëw. Mhm. natt saxaar 3 mois 6 mois xool ko ci courbe bi à peu près nga xam saxaar su évoluer normalement fan la jëm à 24 mois. ok nga xam ne déjà loolu da permettre ci sa ci sa ci sa booy tànn tey say xar. tey déjà trois mois. xam nga tey say xar. ak seen yaay ku mën. te xarit trois mois rek lañ amagum. léegi maal bi dugg tëb say xar xam nga ndax amélioré na xar yi wala amélioré wu leen. mu nekk aussi quelque chose de très remarquable bu mu def. boo xam ne élevage bi mën na ci jëriñu. ok mën na ci jëriñu macha allah. kon lan lan ban message ngay lancé wax ko gars yi ak lan lañ war a xaaree arc-en-ciel ci forêt yi ñu préparé ko ba joxe numéro ak adresse bi pour ñu yooyu seetaan. bu dee am na ñoo xam ne am na soxla wala ay information yu mën waaw bergerie arc-en-ciel moom comme d'habitude rek je me dis que moom surtout Thiès foire yëpp mën na nekk mais Thiès moom mhm. euh, heure bu ñu génnee rek dañuy génn dignement représenter la région de Thiès comme aussi yeneen grand éleveur li ñu koy defee ndax tey boo nee Thiès mhm. du arc-en-ciel kese moo fi ne mhm. euh, Pape Ibou Ndaw mu ngi fi yor ay sujet yu extraordinaire euh, ak ñeneen tey boo nee berger du Kayor rek tour bi egg na foo xam ne euh, Pape Dieng nek fa Xaadim Fall nek fa ñu yor ay suyu extraordinaire ak yeneen yeneen bergerie nek ci dëkk bi. Hmm. mo tax rek Thiès du du du dëkk bu ndaw. Hmm. légui nak message bi may lancé rek moy jeunes yi ñu gën ci nek hmm. parce que déjà euh, da ngay gis nek que Thiès par rapport ak mag yi yi ñu ngi ci dugg bu baax di ci impliqué wu. di ci nek ba légui sax da nga naan est-ce que bo fekkee jeunes sax ha nga mag ñi dañoo bàyyi fekk bàyyiwuñu mais engouement bi ci jeunes yi am damay wax rek ñu gën a jàpp mhm. parce que élevage moom xar yàllaa ko barkeel te pertement amu ci mhm. jury bi nag c'est ouvert à tout le monde mhm. plus particulièrement waa Thiès ak jeunesse thiessoise ñoom moom bañ na ko ba buñ leen di sax nit ñi dañ naan xanaa ah, dañuy may waa Thiès te aussi euh, mooy yoon si biir loolu aussi aussi pour jàppale rek jeunesse thiessois bi euh, jël nañ ay produits fii yu fi juddoo xam suñu ay meilleurs bêtes ñoo ko fi jur ñu génnee si ñaar mettre ko à la disposition de la jeunesse thiessoise mais ku de tëblu rek. boo même boo amul xaalis sax war nga mën accès ci mali demul nga tëblu benn bi nek si métro. Mhm. di wax rek jeunesse bi encore dem len ngeen tëblu ji fa. maal yaa fa ay champion lañ xel ko mu fi genn léegi doomam mu ngi fa. te ko yaay doomu raan la benen produit 100 ran aussi mu ngi kër euh, sama papa Jibi jaw mhm. ku bëgg a rek nga dem foofu gratuitement ñu la dara nga tëblu ci maal champion juddu lu so ay jaay nga jaay million so bëggee tamit élevage ñor la nga téye ko yar nga dem Adam wala feneen nga raw. am ñu succès macha allah. bi tudd ñu xam ko. Cheikh Diop. ok ah, numéro bi nag euh, le 77. 403 95 61. wala 77 632 21 18. adresse bi nekk Alinger, alinger Thiès. Mhm. loolu xam nañu daf ñu dem euh, présenté ñu sujet maali yeeg femelle yeeg tëng yi may gis. Mhm. ñu indi ci quelque rek. nga présenté ma ko xam naa yëpp mënul génn. Mhm. parce que temps bi may ñu ko. nga nga xam ne ñu ngi préparé phase rek. waaw kon ñu dem seppi quelque rek. seppi quelque présenté ko incha allah. jaajëf en route vers Réy. waaw en route vers Réy. incha allah. kon mbokk sama gaal gis nga après présentation bi ñu def ci bergerie ar euh, arc en mhm. ñu ngi taxaw ak premier sujet bi euh, muy maal bi. ci may kan.

Ziad bi jël saladam 2010. Mhm. lañ boole ak doomu Abdou Fall. Mhm. papaam judd. ok kon ñu xam ne que ay champion kese ñoo ko wër. ok moom mu génn si aussi confirmé waat loolu nekk champion macha allah. moom fi la juddoo. non juddoo fi dañ ko dañ ko acquérir bi muy gën a nekk xale. ok euh, fan ngeen ko jëlee. Euh, ci benn euh, éleveur bu nekk Mbaaw. Mhm. benn benn jeune éleveur bu ñuy wax Baye Zal. moom moo juddulee xar bi. moo juddulee xar bi waaw moo juddulee xar bi moom instant bii ñaata at la am. mi ngi si vingt sept mois. vingt sept mois vingt sept mois. lan la fi liggéey est ce que commencé ngeen di jox ay sujets. waaw produire na fii boo xoolee taawam yi léegi ñu ngi am onze mois. dinañ génn léegi ñu gis leen incha allah. ok moom instant bi daf day ñëw rek ci pour liggéey wala dafa war a génn instant bi non genre produit mom je pense que pas que ñu dugg ci mbaar gaaw a ok ndax limuy def ni mom waaw ah. ñu gis xar def ko. Uh-huh. gisuñu ko tamit benn xar bu koy def buñu ñu gisoon leneen keneen kuy def lu ko mën ñu ne ko ubbil ubbil ko bunt bi mu génn ñu dem seeti kok ok ah di mo gisagul kuy def ni mom limuy def. mom mutul génn far wala. non non déggoo may la xaay la mi deux ans mi ngi doog a teg boo xoolee ak. Covid non ba muy nekk foire yooyu. boo xoolee bon dernière foire. Mhm. mooy salaram bi mujj. Mhm bobu mi ngi ko fekk mi ngi nekk euh, war a bu fekkone genn na jeune mâle lay bobu boobu mi ngi am 11 mois. ok ça bi passé. ok kon ce qui veut dire que après compétition yi amaatu fi. Uh-huh. amul won chance génn. mais ni ñu koy gisee ni légui boobu fu mal taxaw mën na fa taxaw. mën na bien vrai que xalé la. mi ngi doog dugg si mën a compétir mal uh-huh. mais mal 4 ans sax faale wu leen fa tool yi. non loolu war na ko. Ah, macha allah kon euh, mom ñaata produit dafa def xam nga ko. bon bari na nak je ma jàpp ma la exact compté ma mais parce que moom mooy sayir un géniteur bu mel nii moom instant bi taxaw ci femelle la grande la grande ça fait allusion à le grand ndax euh, la ci le grand waaw boo hmm, xoolee ñaar bu ma doon dégg quoi bu njëkk ba. waa raan bi nga xam ne moo nekk vice champion Saladam 2018. Hmm. moo jur papaam moo jur yaayam. te mu nekkoon ci Galaya. waaw ok kon fii la jógee dem Galaya. fii dem Galaya. raan nag moo jur papaam moo jur yaayam. ok kii papaam aussi kenn dootu ko présenté kenn ndax kii doomu Muxaa la. Hmm. waaw Muxaa nag je pense que fu ñuy tudd maanaam Sénégal jamono jii fa lañ koy tudd. ok moom euh, euh, fii la juddoo wala. Euh, ah, fii la juddoo fii la juddoo fii la fii la juddoo yaayam fii la juddoo. ok ah. moo am ñaata moo am ñaata at bi. amagul deux ans. si ñaata porté ko. mi ngi deuxième porté am la wàccee même pas une semaine. ok moo nekk nii moom.

Euh, grand Rane daal moom mooy mooy mooy papaam quoi. waaw 100 pour cent Rane la. pour cent Rane papa di doomu Rane yaay doomu Rane. ok 100 pour cent soleil la aussi. ok ndax euh, dañoo jël papa ji. Mhm. doomu Rane la. Mhm. mais yaa am doomu soleil. ok yaay ji aussi doomu Rane la. mais yaa doomu soleil. ngeen teg ko ci kan pour mu jur kii. ñu teg ko nag ci xel kom mu génne bi mu génne ok amagul une semaine. ok. Doudou mhm. kii mooy kan. Qui moi mooy Caroline. Mhm. Euh, nek euh, sët ci Bachir. Mhm. nek sët ci Zlatan. Mhm. ndax papa ji doomu Zlatan lak ak Bachir grand sëriñ. Uh-huh. nekkoon aussi maal bu production mais dafa teel a malheureusement. Uh-huh. mom mi bok xoolee euh, foire rëy bi passé catégorie espoir mom mo classé woon deuxième. ok machallah mom moom dem sectoriel def 104 ak ben portée jubal fofu dem Saladam étant jeune femelle def aussi 105 machallah kon mom xana léegi mu 3 ans. waaw léegi amna 3 ans confirmé na carrément nekk grande femelle. wara ñew nak wané wat nag wanewaat boppam. Mhm. té japp nañ né doxaat na bu baaxa baaxa baax par rapport ak mu won woon. ñu mhm. war ko indi wat foire réet bi. ok mu confirmé wat comme que reet suñu reet la. waaw réyitu Thiès la. ñu wané ne que Thiès am na dara. te comme que yóbbu nañ ko feneen suñu Thiès moo ne boppam. Mhm. jot na nag mu génnaat boppam Thiès. ok wane li mu wane macha allah. moom euh, euh, fii am na ay produits fi nekk fii wala ay journal yu xam yu muy mujj. waaw boo xoolee produit nag yi ah, que ñoom en général ñoom seen produit taxaw. parce que femelle yi ñoom hmm. ci troisième portée mu nekk nii macha allah. ok deuxième deux portées yi ay ay lan lañ. ay jigéen ay jigéen ok macha allah mooy Caroline ah? waaw kii nag mooy Ndeye Marème. Mm-hmm. une doomu ran mhm. waaw c'est une jeune femelle mhm. de deux portes, masha'allah, aussi une très grande femelle mhm. bo xamné kenn ko laccé gis da nga ak mais du aussi musul première euh, foire am nekk foire rëy bi. bi ñaar ñaari box nga am. waaw deux box laa jël. waaw ah, xam nga Thiès moom suñu Thiès la. waaw te tamit li ñuy génn di ko def feneen di ko def adam di ko def ci secteur yi léeg yooyu. Uh-huh. bu ñu ñëwee Thiès tamit faaw faaw ñu def ko fi. waaw ndax boo xoolee foire bi passé aussi nga xool exposition bi ñu fa def. nga war a xam ni que Thiès moom dañ ko jël def ko suñu yëfu bopp. ok waaw macha moom instant bi ngeen mi ngi toll ñaar moom. instant bi amna 2 deux ans. deux deux ans. waaw mu ngi deux ans. am bi qui kan. waaw mhm. mu wat ko mhm. euh, mu un produit consanguin ci soleil. ndax bo xolé surtout soleil la mhm. yaayam di doomu soleil mhm. ñu boolewaat leen fofu mhm. pour un peu def euh, consanguinité ci soleil masha'allah pour aussi liguer fa aussi LCS te boo xoolee produit aussi yi nga xam ne dañ ci doon liggéey macha allah gis nañ ko ci mu war a aussi compétir euh, en tant que ci catégorie espoir femelle ok waaw macha allah ndax boo xoolee ci mois 16 mois masha'allah ok masha'allah mon moom ñaata part dafa def non wàcceegu fi wàcceegu fi ah kon ok mais eh, Doudou. jën maa bi kii moom kii mooy kan kii rafet na. waaw kii nag euh, mooy Ousseynou. Mhm. ki ko téye nii. Mhm. nga xam ne moom moo yor xar yi moom lañ ko tuddee. ok macha allah Ousseynou mii nag boo xoolee sëturaan la. Mhm. te waaw boo ko xoolee rek xam ne ci raan la bokk. macha allah mi ngi ci 11 mois. moom aussi bokk na ci xar yi nga xam ne dañ leen présenté si incha allah. Mhm. moom nag moo war a ñëw. wala dugg si jeune mâle yi incha allah. ok parce que tey koo gis foog ne espoir la wala mâle adulte la. ok te ko xool xam ne mi ngi doog am onze mois. ok allah. a ñëw si jeune mâle yi waaw yaay mhm. nekk doomu jogay. doomu doomu Jogay. Mhm. ak Amina. te Amina moom koo xam xam ne c'est une très grande femelle de chez Abou. nekk doomu Ramses. ok ak euh, Saloum saalum macha allah dugg nañ ci tëng yi. ki ma

non période bii nag taamuñ ci xar yi ci tëbuñu euh, ci at yi wala. non pas ci at yi dañuy bañ xari jur rek ci biir nawet bi. ah d'accord kon yéen daal am na moment yéen noonu organisé woo pour seen xar di ko jur quoi. waaw éleveur de manière générale. ok taamuwuñu mbote di judd si nawet bi. parce que pour mu yàqu daf ci da ciy gaaw. Ah. waaw donc du dañuy xool rek période bu favorable boo xam ne bu ci tëboo bu dina wàcce hors nawet. ok macha allah ok merci. kon mhm. kii mooy nekk aussi doom ci xelkom mm. yaa am tamit nekk doomu raam macha allah mu nekk. Hmm. añal boo xam ne mi ngi doog am 11 mois. macha hmm. allah moom bi génn léegi ñoo maase. Hmm. nekk aussi ci taawu xel ko mi. Uh-huh. macha a aussi ñëw ñoom ñi ñëpp mooy loo bi nga xam ni euh, da nga leen rêvé pour ko quoi ñoom. ñoom loo bi ñoo maase. maase ñoom boo xoolee ci intervalle 15 jours si lañ judd. ok kon yéen yéen yéen yéen organisé noonu quoi pour fexe ñuy tëbandoo wàccandoo. nga xam ne bii bu amul soow beneen du mbote bii mën a naam bii Hmm. ok waaw te tamit di leen mën a gën a mën a organiser mbootay ferandoo hmm. nga mën leen sevrer mën leen toppatoo parce que tey bii bu juree nga toogaat hmm. day doon lu désorganisé ok te je pense que élevage laa dum passé na foofu quoi ok tëng kii moom mooy kan kii mooy laa ren laa reine oui waaw la nekk aussi doomu xel nekk aussi euh, une agnelle de onze mois onze mois yi sax moom matagul ñi parce que ñi ñoo ko mag tuuti yaayam nekk doomu jóori jóori maamam di raxmu naa maamam nag ku ko xam-xam ko ci record. Mhm. ndax tey rax mu naa boo ko bu nee rax mu naa rek jaratul sax ngay wax doomu raan la parce que moom dafa am ay yëfi boppam tey rax mu naa ñu ne mooy femelle mhm. espoir bu njëkk def 102 point 2 tey record bi lu yàgg moo jur yaayam ak jooni jooni jël kooku te ko ci xel ko moom mi mu judd kon xam ne du xaru caaxaan macha allah. ok moom aussi mu nekk une agnelle de 11 mois comme ni ma ko waxee rek. war a génn aussi ñëw Thiès li nga xam ne maamam defoon na ko ñu ci yaakaar rek ne dina def lu raw loolu macha allah. maal euh, la. waaw waaw wane na boppam wane na boppam. waaw parce que nga nga jur loowu tëng. bu ci génn ñu ne bii est-ce que. dina am xar bu ko mën beneen bu génn ñu ne. maal danaa jur ay xar sax ñuy xool benn bii wala ñaar. non boo xoolee maal maal champion rek de manière générale. dañuy dugg sax kër ba génn fa. Mhm. benn ngay tudd wala ñaar. mais nga tëb xar yi léegi ñoom ñëpp ñu jur waxuma premier waxuma deuxième waxuma troisième mais premier loo bi rek. Mhm. boo ci jàpp ne bii est-ce que am na bu ko mën xam ne loolu du non non non waaw ah, mhm. nekk produit cent pour cent mhm. nekk aussi sët ci magistrat nekk tamit sët ci booy séeréer boo xoolee dafa nduru séeréer ba tampon bu séeréer bi sax da ko indi ok xoolee nag moom euh, muxaa lañ jël ok muxaa nga xam ne doomu raan la ok yaayam nekk euh, doomu soleil waaw ah. ñu jël ko boole ko ak doomu magistrat bu nga xam ne yaayam doom boo séeréer la kon nga xam ne euh, séeréer bi dafa daje lu bëri magistrat bi ñëw fa ba pare moom yaayam ñëwaat nekk doomu raan ok waaw moom ñaata mois mu am 13 mois mi ngi donc am 13 mois tëbagul non tëb na fi ay xar tëb na fi ay xar am na yu mu jotu tëb ok waaw mais wàcceeguñu mais euh, arc-en-ciel en général jeune amee ñaata mois lay commencé tëb

ni na ay mensuration yu exceptionnel moo tax sax looloo tax ñu ñu téye ko fi ba léegi. ok ndax boo xoolee xam nga moom euh, pour ñu téye fi xar yombul. waaw mais suñ demee ba téye fi xar ba âge bii rek. c'est parce que am na lu ñu ci gis macha allah. day dem foire. waaw dina ñëw. incha allah dina ñëw incha allah dinañ ko dinañ ko présenté yaayoo incha allah. waaw kii nag mooy Xelcom junior. Mhm. Euh, boo xoolee produit Xelcom yu góor yi moom moo si njëkk a juddu. Mhm. xoolee agent yi mi ngi ci dix mois. Mhm. nekk doomu Xelcom. yaa ji aussi nekk doomu raan. boo xoolee nag bon. ñëpp ku fi ñëw naan waaw lu tax auteur bi exceptionnel ba pare boole ko doole bi mais c'est très normal ran ko xam xam ko ci auteur xam ko ci doole mm-hmm. xel comme aussi koo xam xam ko ci njool trop uh-huh. kon bu ñëwee njool trop boole ko doole ju bari du du du du jaaxal kenn soo xoolee yaay ji nag mooy Seexu Mbaarik ok Mbaarik moom ko xam tamit auteur ak doole da ko Sénégal yëpp xamee ok Seexam nag lañ jël di doomu raan teg ko ci xel comme moom mii mu judd ci ba pare nekk premier doom xel kom bu góor ci kër gi. ok am 10 mois macha allah.